que dañu war a toog rek justement dama a toog xaar am ay taxawaay yoo yeneen taxawaay yoo xam ne war nañ ko mën a am comme par exemple yéen li ngeen nekk di ci liggéey a la waaw Pape ci ban anam leen mën a jàppale ci réinsertion bi mbala dafa am benn affaire voilà dina ci tontu mhm. oui allez d'abord loolu dafa nekk lu am solo parce que dañuy wax en anglais chaque fois del xool li nga mën a defal sa dëkk bul xaar li sa dëkk mën la defal mhm. te loolu dafay dugg ci foofu dafay dugg ci fànn boobu parce que fii ñu toll nii ñi nga xamante ne ñoom ñoo impacté directement par rapport à ce problème là naam am na loo xamante ne état rek moo ko mën parce que ñoom ñoo am prérogative yi nga xamante ne ñoo leen di permettre ñu mën a agir directement si problème bi mais am na loo xamante ne ay initiative personnel la war a nekk. Mhm. mu war a nekk benn auto autodépendance boo xamante ne. nit maanaam bañ a lépp ci état di séntu lépp ci état. waaw mooy autodépendance bi nga xamante ne nit yàlla jox na la prérogative boobu. Mhm. tey jii am na loo xamante ne buñ la ci taataagee. Mhm. ba nga mën a demal sa bopp soo demee ba am yenn raay yow sa bopp mën nga dundal sa bopp mun nga sang sa bopp mun nga solo sa bopp ci kaw loolu. dafay indiwaat yow li nga xamante ne da nga ko war a def muy en tant que nit en tant que être humain nga xam ni sa frère wala sa sœur am na jafe-jafe nga xam ni yow ci sa xalaat bu sell wala ci sa xalaat bu ndaw war nga mën a indi sa appoor bu positif pour dimbali ko waroo ci xaar état état dafay ñëw dolliku ci waa dafay ñëw dolliku ci su fekkee ni initiative boo xamante ne bu baax la war na ci mën a ñëw jàppale la si ci kaw loolu. Mhm. Euh, man benn ci sénégalais yi ñii nga xamante ne ñiy def lu baax ñu leen ci remercier kenn ku ci nekk et je pense que mën nañ fi lim ñu bari ñoo xamante ne def nañu lu baax pour dimbali détenu politique yi pour wuutu si ñi nga xamante ne mooy état mais man dama xalaat ni tey jii jën boo koy may nit jàngal ko nu ko amee ci géej gi. moo ëpp solo ci moom parce que dafay doon loo xamante ne da koy dimbali pour ko moom mu mën a am li nga xamante ne mooy indépendance d'activité am ci kaw loolu ci laa xalaat euh, dem à la formation mm-hmm. parce que la majeure partie aujourd'hui de Sénégal surtout la jeunesse sénégalaise dañu dañu tendre trop ci li nga xamante ne mooy le système du parasite li ñu wax le système du parasite mooy damay xaar lépp muy ñëw ci man ma koy utiliser mooy li ñuy wax sànq li ngeen di wax ndax dañuy xaar lépp ci état tey normalement addina bi fi mu toll jeunesse bi war nañu mën a demal seen bopp état ñëw fekk si leen si formation mu nekk loo xamante ne lu am solo ci domaine yu ci bëri mais man dama dem rejoindre li nga xamante ne mooy la politique du président de la république buy wax ci li nga xamante ne mooy autosuffisance alimentaire autosuffisance alimentaire d'autant plus que jamono bi ñu nekk nii dañu lancé li nga xamante ne mooy les vacances agricoles ci kaw loolu ma ni agriculture nekkatul benn activité lucrative boo xamante ne juste da nga koy def rek parce que dangay bay dundee. Mhm. baax na parce que boo xoolee à la base suñu dundin en Afrique rawatina Sénégal bay dundee bi dafa bokk ci suñu culture mais léegi àdduna bi dafa dem toll fenn foo xamante ne ñun patriotes yi c'est-à-dire ki nga xamante ne mooy suñu leader le président Ousmane sonk si projet bi daf ñu jaay li nga xamante ne mooy la solution. du patriotisme ci kaw solution du patriotisme boobu man ci laa xalaat ni patriotisme sans souveraineté amul du dem mm-hmm. surtout jamono bi ñu toll et que ñun ay ndaw lañ ci parti bi ñu nekk ay patriotes mais il faut que ñu dem à la souveraineté de toute chose c'est-à-dire mm-hmm. domaine bu ñu mënti nekk tey ci àdduna bi dañu war a dem à la souveraineté bu ma ko jëlee benn exemple bu bi Covid bi ñëwee gis nañu ne ñun Afrique même lu ñu bëgg-bëgg suñu réew mënuñu demal suñu bopp ci lu bari. parce que xool nañu ni tey li gënoon a banaal mooy masque mun ñu ko defar. dañ ko doon jënd. di ko jëlee ci beneen réew di ko indi Sénégal pour di ko séddale suñu askan. li nga xamante ne ñëpp ko war a utiliser mënuñu koo defar donc amuñu woon suñu souveraineté sanitaire. Mm-hmm. médicaments yi ñu soxla woon vaccin yi ñu soxla woon. naam Afrique amoon na ñu proposé woon ay vaccin ci Afrique. Mhm. mais dañ koo bàyyi dem jéggaani ko dem jëli ko ci nasaraan bi. mu indiwaat encore beneen souveraineté sanitaire encore. Mhm. bu ñu demee ci éducation bi soo xoolee tey suñu éducation li ci ëpp dañ ko jéggaani ci tubaab bi li ci rax euh, li nga xamante ne mooy identité africaine bi surtout sénégalaise bi bariwul mu amaat souveraineté éducative. Mhm. ba ñu ñëwaat ci suñu souveraineté alimentaire. tey bu Ukraine tëjee ay buntam nan la def pour blé bi dañuy am problème am na lekk yu bari yoo xamante ne ba ci fruits yi suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk dans le sud si Guinée wala Maroc bu ñu tëjoon tey seen i bunt dinañ am problème si utilisation de fruits yu bari yoo xamante ne amaana tey bu ñu formé woon suñu askan ci lii nga xamante ne mooy agriculture bi dinañu mën a dem ba ay jamono ci kanam. dinañ mën a am suñu souveraineté personnelle ba du ñu dépendre ci kenn parce que tey la vraie guerre foofu la si laa xalaat ni il faut que tey ñu xoolaat nu ñuy dimbalee suñu askan suñu jeunesse ñu formaté waat leen ñu formaté waat leen psychologiquement d'abord ñu wan leen ni c'est possible ñu jàngal leen li nga xamante ne mooy ay xam-xam yu am njëriñ yoo xamante ne daf leen di yóbbu à l'employabilité automatique et directe et l' agriculture daf ci nekk benn ma xalaat si internet c' est dire l' informatique cybercriminalité intelligence artificielle. Yeah. coding data. IA yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne jamono bi ku ci amul xam-xam da ngay mën nañ la considérer comme benn analphabète parce que lu ci bëri lu ñuy def ba ci suñu téléphone yi ñu yore pour nga mën a bind message il faut nga am tuuti connaissance ci li wala lu ko jege. ci laa xalaat ni tey dinaa dem si ñi nga xamante ne moom laay wax la je vais une discrimination positive ñi nga xamante ne mooy détenu politique yi dafa am lu bari loo xam dafa impact seen dund. Mhm. mooy sànq li ma junj dama ko junj rek yéen ñëpp kenn ku ci nekk ngeen détaillé ko. parce que dama leen ne ñaar yi gën a am solo yi ñu impacté mooy psychologique ak social. Mhm. te l'être humain ni ko yàlla bindee ñu dañu nekk ay être ay nit yu ay. xeet yoo xamante ne ñu social c'est-à-dire ñun foog ñuy dund ci société donc ci kaw loolu laa xalaat dimbali ñi nga xamante ne mooy détenu politique yi d'abord mais c'est ouvert à tout le monde c'est ouvert à toute okay, la population sénégalaise plus particulièrement nag ñi nga xamante ne jeunes yi âge bi nga xam ne adolescente bi ba yéeg ba ci kaw kon Salif tey jii nii bu ko neexoon bëgg recherche mën na mën na ñëw yemul rek ci détenu politique mais bien sûr xam xam nga suñu nee réinsertion sax préparer ce dossier mais bien sûr suñu yaa boobu dafay am importance te gis nga man sax bu ñu nee réinsertion sax damay xaw a dama koy xaw a changer tuuti ma ne je pars vers la la réintégration sociale parce que boo leen réinsérer daf mel nañ leen a génne ci société bi mm-hmm. man détenu politique duma ko génnee ci société bi dama koy bàyyi ci société bi parce que dafay servir de leçon tout dépend de ban type de détenu nga am su fekkee détenu à faute la ñu corriger ko de part ñu defal ko benn sentence bu rapide te loolu war nañ ci gën a farlu ñu bañ leen bàyyi ñuy yàgg ci kaso yi ñu juger leen wax leen seen peine kooku dafay servir de leçon ak keneen ki nga xamante ne def na foot boobu wala ku koy waaj a def mu xam ni bu ko ci defee lu mel nii moo ko ciy fekk mais am na beneen détenu boo xamante ne njuumtewu kiy jiite moo ko fa dugal te loolu dafay am am na ñoo xam ne dañ leen tëj à faute de ñi nga xamante ñoo leen fa dugal <coughs> parce que tey jii sama frère li mu wax ki nga xamante dafa dem dépanner auto police mais kooku buñ ko félicité wul parce que normalement la police service public la mm-hmm. kooku c'est l'État qui devait aujourd'hui amener des mécaniciens qui travaillent pour la police pour mu mën a dépanner la voiture des policiers mais su fekkee ni le citoyen s'est engage et a fait du volontariat mm-hmm. dem dépanner auto bi mais xool leen li ko ci fekk dem di jëndi gaz ñu ko tëj ko te ka mu doon dépanner mënoon a def intervention ci supérieur bi dem wax ko mais automatiquement lan la ko non dañ lay jàpp mais dañ la jàpp mais la bàyyi mu mujj def huit mois xool leen mu impacte ci vie am alors que derrière def na benn act bu noble acte boo xam ne dañ ko waroon a saluer donc ci kaw loolu laa dem ne ñi nga xamante ne mooy les détenus politiques nañ leen a dimbali ñu dem à une formation à l'agriculture pisciculture ak li nga xamante ne mooy élevage pour jàppale leen pour que ñoom bu ñu jugee ci loolu formation de cinq jours la formation rapide pratique lay nekk nga xamante ne cinq jours la ñuy def ci ferme bi jàng li nga xamante ne mooy agriculture bi automatiquement bu ñu jugee ci loolu dañuy dem ci li nga xamante ne mooy l' entrepreneuriat rapide entrepreneuriat boo xamante ne dafa leen di permettre ñoom ñu mën a dem ci seen i ay tool bay ko parce que ñu si bëri la majeure partie de ces jeunes la dëkkuñu dakaar am na ñu bëri ñoo xam même bu ñu dëkkee Dakar dañ fay ñëw dañu def exode mais ñu si bëri am nañu wala de par leur famille ou bien de par leur propriété personnelle am nañu ay terres yu ñu détenir yoo xam ne war nañu mën a dellu si waat à la terre et nekk utile te day après en mais mooy suivi oui. parce que tey jii si bu ñu defee formation de cinq jours automatiquement dañuy créer benn chaîne te ñoom kenn ku ci nekk dañ lay jàngal leadership parce que leadership boobu ci la ñuy jàngee naka la ñuy defee entrepreneuriat bi nga xamante ne moo di permettre ñu def seen ay business boobu dañ koy dañ leen di accompagner et loolu dafay nekk à l'aide de l'état parce que mhm. état bi may wax sànq ma ne leen foofu nag ci la doole état di ñëw mhm. parce que ñun bu ñu initier projet am na foo xam ne suñu doole foofu la mën a yem mhm. mais bu ñu paree ci loolu état moo ñuy accompagner parce que bi ñuy initier projet bu mel noonu tey jii jaar nañ si ñi nga xamante ne ñoom ñooy ministre yi nga xam ñoom la ñu jox formation Euh, formation professionnelle ki nga xamante ne mooy monsieur Sarré mhm. dem nañ si ki nga xamante ne mooy ministre de l'environnement ministre de l'éducation mhm. xaar ma ñëw mhm. dem nañ si ñi nga xamante boole nañ ñoog ñi xam ñoom ñooy gérer loolu muy ku mel ni 3FPT nga xamante dinañ. kon effectivement état bi mi ngi mi ngi impliqué wu ci réinsertion sociale des ex-détenus politiques. ñu def lu bari. c'est juste que comme l'a dit mon frère tout à l'heure peut-être action état dafay xaw a yéex par rapport à. bëgg-bëggu nit ki parce que dafa am benn chaîne ak benn procédure bu muy suivre raison pour laquelle ñun ñu jël suñu initiative en tant que citoyen ñu dem à l'action d'abord et après ñu dem à la suivi de l'État c'est-à-dire poser des actes et demander à l'État de suivre su fekkee c'est un projet boo xam ne c'est prometteur et c'est positif directement à li nga xamante ne mooy la population donc bu ñu paree ci formation bi on va à l'entrepreneuriat en ANPEJ mu ngi ci def liggéey bu am solo. parce que ANPEJ demoon na si ñoom ba ñuy def seen graduation bi gis na ñoom formation bi ñu nekk mais en même temps nañu xam ni jëf zone bi nga xamante ne moom la con ñaa mettre en euh, à notre disposition pour ñu def foofu formation yooyu. état tamit am na yeneen. canal canal yoo xamante ne yu yu nekk ci zone yu diverses. ci zone yu gën a élargie su les quatorze régions yoo xamante ne. tey jii war nañ ko mën a utiliser d'où aujourd'hui may wax yemul rek si détenu politique yi mm-hmm. mais ñoom dañu bokk ci li nga xamante ne ñoom ñooy la discrimination positive raison pour laquelle ma dem si ñoom parce que sànq bi ngay expliquer mon frère mm-hmm. nga ne dañuy perte seen ay liggéey mm-hmm. dañu perte seen ay moyens perte li nga xamante ne seen dignité familial si loolu laa xalaat ma ni tey ji naka la ñu mën a dem rapidement parce que ñu si bëri fu ñu toll nii seen patience. dafa nekk a bouillon. Mm-hmm. et il va falloir que ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy seeni ay frères nekk seen euh, mun naa ne seen fusion directe. Mm-hmm. diggante ñun ak état. Mm-hmm. ñu mën a réagir si suñu mën-mën nuñ ko mënee. balaa état. di ñëw jàpp si te xam naa ni. l'intention loolu lu si damay ñëwaat ci yow léegi gis nga piste de solution yi déjà commencé na génn maanaam am na ci kuréel ex détenu politique yoo xam ñoom.